Euh, député muy Moussa Diakhaté euh, bokk ci groupe parlementaire benn bokk yaakaar yor bokk gis-gis honorable ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. soxna naata maa ngi lay fay di la ziar di nuyu ñooñu nga toogal ci plateau bi du nuyoo aussi Sénégal yi ànd ak ñun saa su ne ci TFM bu suba jotee. merci beaucoup alors euh, Cheikh la ñuy bàyyi mu tàmbali waxtaan bi gis nañ dem assemblée nationale gouvernement baa nga fa woon di tontu ci laaju député yi. wala justement naata foofu la ñuy commencé honorable assemblée nationale bi ngeen nekkoon démb ginnaaw ay bés yu bari xamante ni toog na fa toog toog na dajewu leen fa démb euh, ngeen daje fa pour ay questions yoo xamante ni da ngeen ko doon jox gouvernement bi mais gis nañu déjà tension bi bari attaque personnelle yi Koulibé yi euh, lan moo waral loolu. bon warul bert kenn Cheikh bu dee suivre nga bi ni mu installé ni mu demee euh, dañuy dañuy dañuy wax rek ni mu am woroo ci gis-gis du ñàkk ci assemblée mu am fermeté. ci propos yi warul ñàkk ci assemblée mais bu yiwul rek dañuy fayyu parce que au de la du député au de la de nos divergences ñun dañoo bokk ci tànneef ñuy wax ay sunuy doom suñuy jarbaat di mu seetaan on peut être très ferme dama koy wax di ko répéter mais war nañ di war du kàddu yi parce que barab la naam bu ñuy warante barab la bu ku nekk di waxe gisam mais barab la bu ñu war a toggee citoyenneté parce que c'est la lieu indiqué pour ñu waxtaan mm-hmm. damay faral di wax nag ni ni ñu ñëwee la parce que soo bëggee xam li xew tey xoolal li ko anti liste yi andi ñii ñu bari ci ñun. parce que dama wax ni ñooñu waruñ fa woon nekk. oui non tu sais politique damay faral di ko wax discours la mais avant discours parcours la comme liggéey bi ngay def tey soo jëloonu stagiaire bu nga toog sa place wala place su naatame di nga gis ni dina buté ci mooy wala di nga sentir ne mu ngi stressé lépp dafa am jàng am waajal suñu la waajalul nag soo ñëwee ci cadre yooyu su la écran yi tiimee ñaaree sago da ngay tàggoog moom xëy na sa xër la wala ñàkk waajal mooy tax yenn yi muy am. pour man war nañ ko corriger boo seetloo euh, débat d'orientation budgétaire mm-hmm. gënoon naa tàng installation assemblée bi gënoon naa métti naam bii am na mais boo seetloo dose baa ngi wàcc pour man mm-hmm. ni ñaa ngi jël conscience que ni ñu ñuy critiquer ci ni ñuy doxalee. te nag kenn ci ñun du ci mucc. Ah, mais li ngay wax ni sax dafa mel ni da nga koy jë jëmale ci benn euh, parti wala benn côté mais dafa mel ni yéen ñëpp vous êtes xam nga bi ma déggee ba léegi je parle d'une quatorzième législature. man hmm. muccu ma ci. Hmm. j'en partie su tâché daf may tâchal man. Hmm, kon ñi nga xamee ni waruñu fa woon nekk tey ñu nekk fa. non ñëpp la euh, c'est dans tous les camps. xam nga euh, man nekkuma ci nihilisme. naan ñii bon ñii baax amul fenn. Hmm. quand boo ci gis am na ñoo xam ne seen comportement c'est irréprochable dañ dañ mën nañ ko reprocher comme mën ko bañ le camp de l'opposition il y a de il de très bons profils dans le comme dans le camp du par moment aussi mu am des excès dans l'approche mais quoi qu'il advienne nous devons tous ñun ñi nga xam ne ñooy députés yi yow sa moroom ak keneen dajale seen askan jox ñu dañu am benn obligation de tenue quelles que les divergences war nañ ko booleew yiw ak worma ak luñ mënta wuute gis-gis on peut être très ferme mais aussi ñu woddu kàddu yi ak jëfin yi parce que les enfants nous suivent mais euh, honorable euh, qu'est-ce qui que pombiteer yu nëpp yooyu entre guillemets moom mooy yàq saaku bi yëpp ndax euh, assemblée nationale genre euh, débat yi bu amee li ñuy gën a jàpp mooy peut-être incident yi am ay ay kàddu yu ñagas fii wala ay actes yu ñagas fii alors que dañ fay poser parfois ay débat yu am solo yu yitteel sénégalais dañuy dem sax ba débat yooyu dañ koy occulter dafay muur maanaam daf koy muur incident yooyu ñu fay deux dimensions qu'il faut régler mm. parce que yéen dañ leen di ñamal ca la fay xew pour man il faut aller vers la télévision parlementaire ñu may sénégalais bi mën ñu natt mm. xam nga ci juróom minute mën nga ci juger nit mën ci juum mm-hmm. mën na tàggoog sagoom mën na juum pour man foofu assemblée war na fi def jéego yu mag mm. muy am télévision parlementaire ñu mën di ñu natt di mën di ñu juger day tax bu ëllëgee bu Moussa Diakhaté bëggee wala keneen bëgg ñu ñu fal ko sur la redevabilité bañ la yónnee lii la ñu defaloon benn mooy loolu. ñaareel bi ni mu amee ci fii parce que je suis journaliste communicant. ci sunu famille journalisme bi. Mm. léeg-léeg mu am ñoo xam ne nii ñii di raas dem ñii di gàmmu noonu la amee aussi dans l' assemblée. assemblée la fa xew mooy li xew ci société bi te d' accord ne ñëpp ni ko notre société sénégalaise war nañ ko régenter parce que am na crise des valeurs. Mm-hmm. ëppee na nag ci wàllu politique bi. moo tax ma yaakaar ni am na génération boo xam ne am nañ mission assainir néew ma mag ñi defuñu. mais jàpp naa ni mag ñi am na fu ñu àgg y a une nouvelle génération qui doit s'assumer dans la divergence mais dans l'élégance sama ngëm-ngëm la ci la ñu war a jëm. est-ce que est-ce que fu ñu lajjee peut-être entre guillemets euh, honorable du ci choix wu liste yi pour donner un petit peu raison euh, jamono jooju opposition bi euh, ndegem waa Yewwi Askan Wi par exemple ñoom suppléants yi la ñu liste suppléant la ñu teg waa Benno Bokk Yaakaar ñoom liste titulaire kese est-ce que du foofu tamit la ñu la ñu lajjee dès le départ. waaw mën wax lajj. ndax su fekkee ni ci liste yi je prends exemple équipe nationale bi war a football ñu leen di ñaanal ndam mhm. su fekkee ni titulaire yi ñun disqualifié ñi ñu jàpp ni ñooy remplaçant yi c'est les moins performants mhm. dans la logique mën na am mën na bañ am mais ci critère d'appréciation yi mhm. li waroon gën ñëwul tànneef bi warul ñëw ñëwul day jouer ci rôle bi mais ci tànnin bi aussi war nañ ci travailler bu baax parce que y a plus de députés de partie de camps politiques que des députés de terroir. liste proportionnelle boobu pour man war nañ ko repenser muy am des listes de localité muy am deux tour Moussa Diakhaté bu ko Dakar fale il est obligé mu liggéeyal waa Dakar rendre leen compte sinon bu ñëwaatee lu falo mais su fekkee appareil la far amaana boo amulee une conscience citoyenne mën nga ni sama yoon newu ci ndax kii fal moom waayam la naa def li ko neex et loolu day biaisé sunu rôle bi nga xam ne nii moo ñu war en tant que parlement comme pour dire war nañ ko pensé waat moo tax may rafetlu kilifa yu jóg ñu mel ni ñoom président Doudou Wade ñoom Imam Mbaye Niang am cadre di ko waxtaanee pour la refondation de notre parlement dans l'intérêt de notre démocratie. Alors, honorable, ah. euh, au-delà de coow leeg yooyu waxtaane nañ fa quand même ay ponk yu am solo yu soxal réew mi mu jëm ci wote euh, président yi nga xam ne daanaka li ci des ay weer la euh, ndax réponse yi nga xam ne premier ministre indi na ko dal na seen xel ci wàllu organisation élection yi mu nekk ay élection yu libre transparente ba nga xam ni képp ku ci bokk doo ci am xel ñaar effectivement li premier ministre wax damay rafetlu déjà yiw gi ak yar gi gi mu waxee rafetlu aussi ci li mu wax lu xel mën a jàpp la ñu mën ci teg baaraam ndax ay élection romb nañ fi bi ci mujj mooy présidentielle yi passé ña ca bokkoon te bokku tey ci kujje gi ñu ci bëri nangu woon nañ ni ay na yéwén jàll na gëm naa ni Sénégal fi ñu toll comme dans toutes les démocraties dans toutes les élections amul lu parfait fenn mais jàpp naa ni sunu système électoral toll na foo xam ne ni tey jii ak aussi le concours de la presse kii nous renseigne à la minute près de jàpp naa ni le système assez fiable pour ñu mun dem ci ay élections yu mun a jongante Sénégalais yi tànn ki ñu bëgg donc les réponses du premier ministre non seulement satisfaire nit ñi mais waxin wi yiw gi dal gi bokk na ci en dehors de satisfaire loo xam ne nii baax na ñu ciy inspiré wu ñun ñi nga xam ne dañuy wax ci mbir beneen point bu ma soxali tamit mooy jamono ji ku ne xam na ni fitna bari na lu mu lu lu mu lu mu am ci réew mi ay yëngu-yëngu ba mu am sax ay ñu nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñu leen di masaw mu mel ni que taxawaayu force de défense et de sécurité ci wàllu maintien de l'ordre ci wàllu état de droit ak taxawaayu justice ñu bëri ngàññ nañ ko rawatina ci assemblée ba ndax tontu yi nga xam ni jëwriñ yi ñu ñu dénk fànn boobu indi nañ ko convaincre na la yow. matière de remercier nos force de défense et de sécurité je crois que le ministre de l'intérieur wax na ci doctrine bi soppeekuwul xeetunu manifestation yi moo soppeeku taal la saaga la yàq la toj la bu loolu amee nag day laaj de la fermeté nous avons tous intérêt d'avoir un état fort su sinon léppay nërmeelu mais yaa ngi leen di yaa ngi koy rafetlu mais ce n'est pas le cas de tes collègues. Euh, oui de mais loolu mooy charme démocratie bu ñëpp bokkee jëmu mais amatul enjeu. ñoom ñu may leen mais muy man di keneen loolu aussi suñu péché la ñun tam. acteur là à tirer des balles réelles à tuer des loolu yi tamit kenn mënu ko rafetlu. waxuma la tuer kenn mënu ko question. bu ñu sañoon du ñu blessé kenn. Mm-hmm. et defe naa ne ku waxal sa akulaay taala. nos forces de l'ordre et de défense. dans la sous-région. dans l'Afrique j'allais dire même dans le monde. font partie des plus professionnels. Mm-hmm. nit lañ nag comme ñëpp. mais aussi autant. ñu leen di demander à plus de vigilance comme ni ñu koy defee d'ailleurs ndax gis nañ ay manifestations moins dangereuses dans d'autres pays africains mu am ci plus de morts waxuma la dee mais xureeku bu dalee doomu Sénégal dañuy métti waaye autant aussi ñuy wax ñiy woote naan génn leen taal leen. toj leen ñu rappeler leen à réseau à la raison. mais autant aussi ñi nga xam ne dee nañu ci ñu war ci def enquête te yéen parlementaires yi war ngeen a mën a leeral loolu. parce que on en est presque à. mais 20 morts 20 am impunité total kenn xamul kan. moo lay kan ah, man de personnellement fii laa la ko waxee. danaa ko topp ci lu mu ci yoon may dinaa ci dox. benn bakkanu doomu Sénégal bu rote on doit expliquer le pourquoi et le comment. et que les auteurs de ce crime su dee am na. qu'il soit châtié yoon wax ñu teg ko seen kaw. mais honorable mais honorable mars ba léegi mi ngi bëgg a bëri def na ñaari at ak lu topp déjà mhm. jamono jooju fukk ak ñett lañ waxoon ñoo ñàkk seen ba bakkan entre temps am na yeneen boobu ba léegi lan moo tax boobu ba léegi ça n'avance pas. ah nel yëgoo. parce que le temps de la justice. n'est pas le la. mais mais invité nañu fi fii benn euh, soxna bu bokk ci euh, koo xam ne moom tam daf cee perte rakkam mais moom nee na boobu ba léegi kenn dégguñu ci dara ci wàllum yoon woowuñu leen ci enquête defuñu alors ko ñoom dem nañ sa porter plainte. waaw xëy na dafa jotagul dégg nga ñaata yoon nit yoon teg ko loxoom di def enquetam hmm. li ma d'accord ak ñëpp mooy ni amul lenn loo xam ne ni war na dal sénégalais te yoon waru ci jóg dox ci. na yoonu taawu yoon mën na wuteeg taawu justiciable. mais li am solo. te ñun ñëpp ñu wax dafa fekk mu arrangé wul pouvoir bi rek. pardon. boobu dafa fekk mu arrangé wul pouvoir bi. waaw loolu yow la engagé. xam nga on est démocratie. looloo neex ci Sénégal ku ne sañ nga waxee. waaw la neex mais bu dee loolu am na itam may ma wuyu rek seex bi bu dee loolu am na. Hmm. du li gën parce que li mu war a def mooy par moment. Hmm. ñu fàtte suñu camps et clans. penser Sénégal dama ni jëf ju rafet fu mu am on le hmm. sooxee dañ ko war a combattre xeex ko jubbanti ko. parce que c'est comme ça qu'on avance. dans parce que gis nañ fii ci yenn euh, situation yi procureur dafa auto autosaisir mais ci vingt morts yi am ba léegi naax saay kenn defu ci benn effort pour jéem ko euh, faire avancer l'enquête loolu aussi gàcce la. pour mais d'accord nga ni pour autosaisir c'est lui qui juge de l'opportunité. waaw mais. ma man ndax d'accord nga ci. d'accord waa ñu may ko loolu. et aussi il faudrait aussi. ñu bañ a jàppee suñu bopp Mamadou jàppee ne Mamadou man par principe. non non non man par principe dama jàpp ne ñun ñëpp bëgg Sénégal. Hmm. ku nekk ci liggéey bi mu nekk. c'est à lu de juger li ma dul d'accord kay mooy ñi def excès de. Hmm. Ah. de pouvoir wala nit naxasaay liñ ko dénk. Hmm. su boobaa danañ ko ŋaññ foo mënta bokk ak koo mënti doon. mais honorable yow mars 2021 euh, ban appréciation nga amoon ci liggéey force de l'ordre. mars 2021. mooy événement mars yi. rafetlu ko ba rafetlu ko man la kii invité woon fii. TFM Alsane Cissé la je crois. man mi lay invité Ablaye Ablaye man la invité woon mani force de l'ordre yi bu ñu amuloon sago jamono jooju déggoo li mu la non bu ñu bu ñu gis nga wax ma la benn moor ba bu ngeen ma dégloo blessé su bu amee c'est trop dans une dans une démocratie mm. mais dama ni jamono jooju ku xooloon environnement bi suñ force de l'ordre yi bu ñu ànduloon ak sago lu ne mën naa xam ci réew mi ñu ñaawlu nag la fa am mani man mii j'ai interpellé le ministre de l'intérieur alors nii oui justement ma terminer s'il vous plaît nii loolu dañ ko war a topp mu leer doomu Sénégal fu mu daanoo rot il faudrait ñu punir ñu ko def lan moo andi événement de deux mille de de de yooyu ngi wax marché xeex la bu concerne ñaari nit mooy élément bi mm-hmm. yu seq wala yu jiiñante seq moo andi loolu moo tax ma ni loolu mu xëy na moo ñu ànd ci procès boobu nekkatul yëfu privé dañ ci dugal askan wi ba lor ci askan wi kenn waru ci seetaan koo léegi concernant ministre de l'intérieur ci justement ci euh, yi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan ci manifestation yi y a quand même eu un fait assez inédit euh, ministère de l'intérieur génne communiqué laata sax euh, ki nga xamante ne moom mooy médecin légiste bi génne euh, moom appréciation am ñu gis na ne les deux versions quand même elles sont quasiment diamétralement opposées euh, est-ce que yow jàpp nga ne rien que par ce par ce fait là du ministre de l'intérieur am na ba léegi légitimité euh, nekk ministre de l'intérieur au sein même ni ma koy analyser mooy heureusement je parle à un communicant un sachant dans daf ni fait yi mu am éléments yi il a utilisé le conditionnel xam nga ce que c'est que le sens le temps gënuloon doo ma rek ma ñëw ah. il a utilisé le conditionnel mooy foog ci li ñu amagum bi ñu demee ba enquête bi mujj ñu gis ni xale bi projectile moo ko moo ko moo ko moo ko faat ça ne change en rien en situation de crise waroon na defaat communiqué dégg mais mais contredire communiqué ba d' accord naa ci waroon nañ leeral ñu ne je suis d' accord avec waroon dal non non non xam nga dal ak il faudrait aussi ñun itam bu ñu bu ñu xam suñu métier xamal jàmbur métier euh, dans une situation de crise prudence non non non non non en situation de communication de crise on prend des risques je parle de choses xam ne lu may jàngale la Parfois, on part sur des certitudes, on analyse à part des éléments dont nous disposons. Heureusement qu'il a utilisé le conditionnel, mais selon les éléments que nous disposons. Le conditionnel, c'est le temps du doute, donc il n'y a aucune certitude. Il fallait qu'il s'exprime. parce que jamono jooju nit ñi bëggoon nañ xam jamono la presse avait donné l'information gis nañu xew ci réew mi. tekkaaral moo gën a bon lay naam gënul après comme tu dis oui il faut revenir sur un communiqué pour clarifier mais en général communiqué yooyu su ko defee c'est pour décharger quand même ces hommes à chaque fois là je vous laisse assumer la responsabilité mais... de principe de principe là de principe cela pourrait se comprendre de principe état dafa am nu ñu koy gérer ñi féetee ci yow bokk ci yow c'est important qu'on informe autant il le fait autant d'autres font des communiqués ou fait des pour ñu daw ci force de l'ordre alors que manifestants comme force de l'ordre c'est tous des Sénégalais quelles que soient nos war nañ arriver à un moment où duñu franchité lu ligne rouge bi te loolu aussi sa appelle à une responsabilité des acteurs politiques que nous parce que force de l'ordre bii ñoo fi nekkoon ci Ablaye Wade ñoo fi nekkoon ci Abdou Diouf ñoo fi nekk ci Macky suba ñoo fi nekkaat kon baax na ñun ñuy wut ñu bàyyi leen xel jox leen warma bi sinon ëllëg danañu bëgg te bu ñu ñëwee ku ñu nettali Euh, hmm. waaw euh, honorable yaa ngi wax sànq ni ñi nekk assemblée nationale am na ci xaj na ñoo xam ne tàggatoo tàggatuñu leen en amont laataa ñu egg si foofu qu'est-ce qui fait défaut ci parti politique yi wala mouvement yi ba nga xam ne léegi nit ñi dafa mel ni euh, xamatuñu sax réellement lan mooy engagement politique ak lan moo leen lan mooy seen devoir vis-à-vis des population ñi leen di tànn ñi leen di jiital mais boo liree sama chronique di nga ko gis actuellement on travaille plus sur des batailles électorales très souvent nu ñuy gagner la ñuy wuti dégg ti nga école de parti bu dee am na néew na. Mm. le parti doit former des militants préparer des citoyens mais très souvent pour man y a une démission des partis politiques ku ëpp mbooloo gën a mën a andi buzz ku mën a indi voix fa lañ toll. amoon nay jamono quand on écoutait nos élites doo nooy yi actuellement dafa am affaissement de la valeur li ko waral nag mooy ku mer créer parti foog ñu régenter ko. mais ñu dem dans des blocs forts. pour que le débat politique am niveau. parce que formation bi su defee defoo rek dafay am njeexital ci nekkinu acteur politique yi. mais li ngay wax nii dafa am solo tellement. que euh, nit ñi mën nañoo bàyyi xel bàyyi xel que ni euh, da ngay réere mbir également lu ko ëpp solo xam nga mooy lan mooy que ni assemblée nationale c' une institution consacrée par la république sénégalaise. Mm-hmm. Euh, ñu dem ba assemblée boobu. ñi leen di may gët yu nu xoolee euh, beneen institution la muy la présidence de la république nga xam ni même ba ñuy choisir le président de l' assemblée nationale dañu joxe consigne ni wooteel leen diw yéen xamu leen ko woon même ci majorité bi nga bokk pour man est-ce que foofu la assemblée bi déception bi foofu la ak euh, luppe bi foofu la commencé. non aucunement dans toutes les assemblées du monde. les gens s'organisent en majorité pour accompagner en tout cas bu dee dans le système comme le nôtre dañuy travailler pour am une majorité pour accompagner le président mais dafa am loo xam ne nii yow fii dañ laa andi TFM la ngay liggéey sa aqulaayu taalaa la il appartient au députés de prendre toutes ses responsabilités et sa xam ne de 60 assemblée ma amee ba léegi lépp lu fa député wax ñu ngi ko enregistré suñuy doom suñuy sët dañ koy déglu kuy wax war nga xool la ngay waxaat les régimes passent et l'histoire reste ku say waajur yàqul sa wëy waroo yàq say wëyu doom foo mënti bokk donc question de responsabilité personnelle la que ci tànn yi aucun aucun régime n'est parfait mais ci autour de dialogue la ñuy perfectionner les systèmes avancé ci oui il faut nu ñu refonder sunu parlement on a eu de très grands parlementaires et pourtant le système a été le même. dialogue comme on dit le mot est lancé tey coow li bëri na ci dialogue bi euh, ñii ni euh, dinañu dem ñii ni duñu dem mu mel ni que euh, consensus amul sax ci toog waxtaan ak ci lan la ñu war a waxtaan. ankay xam nga pour consensus am foog ñu natt ñan ñooy dem ak ñan ñoo dul dem buñ jaawalee consensus ak unanimité mhm. ñan ñoo bëgg dialogue wax nañ ko ñi ne demuñ sax ndax am na ñu bokk seen biir. nee nañ du lu ñu waxtaanee ba déggoo. waaye comme seen i li ñuy wax la seen seen yëfi bopp la fóotum biir la waaw fóotum biir la. damay am maandu yem ci. mais dama ni guerre mondiale bi gën a ëpp catastrophe ci àddina ci dialogue lu mujjee soit xelu dialogue wala xelu dialogue. xelu dialogue nag mooy ànd ak sa sago toog waxtaanee ko om peut être divergent dialogue du foog ñu jubóode hmm. mais foog ñu toog waxtaanee ko wala ñu dem ci jamono yóbbu réew mi foo xam ne ni kenn ñaanu ko te su boobaa ñu ñëpp danañ xelu toog waxtaanee ko mais yéen waa bokk gis-gis euh, da ngeen topp riirandoo bi rek wala dafa am ay point yu leen intéressé si dialogue boobu mais évidemment li ñu intéressé bari benn riirandoo ki koy topp mooy ki xamul par essence ki jiite bokk gis-gis hmm. c'est la synthèse du dialogue c'est un homme de consensus en tout temps en tout lieu dayee ba ñaan ko mënoo politique sax ndax Pape Diop nitu jàmm la li ñu wax parti hmm. politique boobu xuloo beexe bi doo ko ci dégg les gens disent est-ce que day politique parce que réew mi nag boo meloon ni Moussa Diakhaté wax ba sa yàpp saf ñeex te reyoo dara dañ jàpp ni politique ah. alors que hmm. mën nga mën nañ dem ci dialogue waxtaanee ko ay tomb parce que lu bari même sur le processus électoral lu toll ni parrainage bi lu hmm. toll ni leneen parce que dialogue bi encore c'est pas seulement dialogue politique c'est un dialogue national dialogue nga les forces vives man affaire euh, nu mu tudd fonction publique local bi waruñu cee wax. code la presse bi waruñ ko gën a xoolaat. mais xam nga Moussa musaa xam nga dañoo élection présidentielle dafa jege ay weer rek moom moo ci des. te euh, loolu moo tënk ñëpp actuellement mm. ci réew mi. te ki nga xam ne moo woote dialogue bi nag ñu bari dañu ne. warta bokk bokk. looloo andi coow la. loolu ku ne sañ ko wax de war naa bokk warta bokk opinion la ki ko war a décider kenn la c'est le conseil constitutionnel. ak lu waay ci wax xam nga man je suis à l'aise en 2000 constitutionnel dafa wala nu mu demee en 2011 hmm. man maa nekkoon porte parole UJTR d'accord sur la même question j'avais servi la même réponse fii ak boobu nag ku ne sañ nga ni am naa mbër ku ne sañ nga ni sa mbër du bëre waaye kenn mooy arbitré c'est le conseil constitutionnel lu ci waay mënti wax nous sommes dans le débat pour animer débat d'opinion ku ne sañ nga wax lu la neexee na yiw rek. Mhm. te rafet parce que loolu mooy démocratie. bokk gis-gis lan moo nar a nekk taxawaayam ci présidentielle 2024. Euh, buñ ci waxtaanee mu ñëw ci parce que kilifa gi wooteegu ci. waxagu ci dara déedéet. Hmm. en tout cas buñ ci waxtaanee dañ dem ci dialogue ba. wax nañ ko te man mii bu ngeen demee ci dialogue bi di ngeen wax ko seen position. waaw ne yow déggoo ko. xam nga loolu mooy problème bi les gens ne jugent que par la communication média. Hmm. Ah, d'accord ngeen ni waxtaan ak say ñoñ. absolument actuellement ah, ñu ngi ci. te mu ngi liggéey réew xam nga réew mi nag le problème mooy. Hmm. dañ am essentiellement des politiciens professionnels. du 1er janvier au 31 décembre politique la ñuy wax. Pape Diop lu ko waay contre contre nangul ni c'est un homme d'affaires liggéeykat la. Hmm. daa am jamono politique am jamono liggéey bu jamono liggéey surtout jamono joo xam ne ni saaga la xaste la jéeñante viol la dafa am kilifa yoo xam ne ni buñ xamee seen bopp dañuy sakkanal seen bopp l'une des meilleures ah, formes de communication neuf mois de la présidentielle war nañu mën a xam fu mu féete quand même. ko xam ci lu yàggul dafa dem tukki bu ñëwee man mii maa lay woo wax la fu ñu féete. présidentielle boobu sax bu ñu sañoon tey eh, ñëpp ñëpp ñi nga xam ne. sénégalais lañu remplir les conditions bokk ci ñi ngi wax euh, ci mbirum xalifa Sall ngir ñu euh, mu bokk ci ñi ngi wax Karim Wade ngir mu bokk ci tey ji Ousmane sonk ñu bëri jàpp nañu dañu ko fitnaal xatal ko ci euh, paysage politique bi di jàpp ay ñoñom di tëj ci kaso bi loolu yëpp est-ce que tey conditions yooyu daje na pour ñu véritablement mën a waxtaan est-ce que teg lépp ci suuf boole ñëpp ñu dem élection sénégalais yi tànn ku leen neex gënul mais loolu Malick pour nga wax li nga mujj wax ni pour mu am. foog waxtaanam. yaa ngi wax ni kon am na raison nit ñi waxtaan benn xalifa ak Karim sañ naa ci wax. ndax fii ca kër ga laa bokkoon j'étais du PDS. xalifa it on a des rapports personnels muy sama mag mi sama yéene sama gis-gis mooy ñu bokk. nuñ ko mën a defee ñu bokk man laa wax de mooy suma yéene mooy suma bëgg-bëgg. lu ma ci mën a doxit wax ci dinaa ko def. pour le dernier cas yaa ko tudd muy Ousmane man dama d'accordul ak son style et je l'assume xam nga politique ñun fii réew mi dafa am ñuy politique te ba ñu jël position il est libre de faire la manière bi muy politique ànduma ci man man lu yiwul bokkuma ci ànduma ci saaga ànduma ci xaste fitna bi ngay wax dañ ko ko teg nañ analyser rek les discours c'est pas le seul opposant lan moo fi am ak moom c'est le procès ak Mame Mbaye Niang diffamation la bi jàpp nañ suñuy moroomi journaliste te lan ngeen di dégg la beneen bi question de supposé viol la moom la ak beneen askan ba léegi état jógu ci xam nga plus ou moins mën nga ni Karim Wade CREI yi moo monté dossier attaqué ko mën nga ni Khalifa Sall juste moo monté mais Ousmane ñaari mu am yépp lu ci ëpp moom la ak nit. c'est pas l'état mais ki mu ko seqal dafa ne état nekk ci ginnaaw. waaw ki mu ko seqal xam nga mooy seen wax ñoom ñaan ñëpp man damay lii si yoon wax lay wax présomption d'innocence lay may Ousmane lay may Adji Sarr ñoom ñaar. ba yoon bi àtte te yàggatul le premier. génn de la chasse aux pastéfiens parce que tey bu ñu demee ci kaso bi plus de trois cent jeunes yu nga xam ne ils répondent de pastef ak ay responsables pastef ñu ngi ci kaso bi tamit. est-ce que amul tentative de de de de. de déstabilisation ou de décapitation d'un parti politique. Euh, képp ku woote su fekkee ni da ngeen jàpp te amul base légale jaarul yoon waaye képp ku woote insurrection képp ku woote saaga. képp ku woote toj te dam yoon dala war a jàmm ba ci journaliste yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy subir les dommages collatéraux yan journaliste. Euh, euh, tey Pape Alé mi ngi contrôle judiciaire Pape Alé Pape Ndiaye Pape Ndiaye mi ngi ci mi ngi ci. Pape Ndiaye li mu wax yow doo ko wax. Euh, ki nga xam ne tey mooy suñu doyen bi mi ngi ci. sëñ Saliou Gueye may ñaan mu jëm suma xarit la mi ngi dem ak ñëw. suma xarit la mais loolu mooy yoon dañ ko woo déglu ko ndéggali ko jugé guñ ko de te yoon am na droit loolu il faudrait que ñun itam ñuy nangu xam nga yàlla ce qu'on appelle secret de rédaction dans les couloirs nit ñi danañ waxtaanee am na loo xam ne waxuwul yéen seen kër gi jàppuñ fi kenn. kër keneen jàppuñ fa kenn am na loo xam ne nag doon journaliste mayu la ko ndax li ñu nekk nag dafa am loo xam ne nii moo ñu tënk en tant que journaliste ak koo munti doon c'est pas parce que politique nga leader politique nga yoonu tegu si kaw wala journaliste nga ku jaawul yoon yoon tegu sa kaw li bon kay mooy singili fu mu mënti nekk ak ku ko munti def ñu dénoncé ko ak foo hmm. mun ci bokk. merci beaucoup merci honorable merci honorable député Moussa Diakhaté bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar yore kàddu bokk gis-gis ñu ngi lay ñaanal kenn ak jàmm honorable merci di leen sant di gërëm ba beneen yoon incha allah. incha allah jërëjëf ñu jàll ci l'observateur ak record li ñu xëyee tey.